alors laaj bi tay moy euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ci réew mo nga xamanteni euh autosuffisance muy en riz muy en blé muy en en oignon surtout dañ ko yag di way joxe woon nañu échéance 2017 yéen a ngi fàttaliku tey fu yëf toll. waaw euh, am na yenn produits euh, vraiment nous sommes en avance comme so jëlé oignon nga jël pomme de terre nga jël carotte horticulture horticulture objectif vraiment. objectif problème on a un problème sur le riz pourquoi parce que euh, c'est des problèmes structurels. boo ils sont inhérents mën nañ taxaw ci horticulture bi. wax ci surtout ci en fait. autosuffisance. mais des cadre bi war ngir gaay yi bu ñu bayee aussi ñu mën di conserver seen conserver seen ay produits ren gis nañu li xew ci soble bi. Mhm. Euh, ay producteurs yi nga xamante ne jaay bay nañ ba mu bëri. Mhm. amuñ fi ñu ko jaay finalement dafa mujj yàq ko ci seen loxo. tout à fait donc euh, horticulture bi tamit am nañ ci un problème mooy conservation. parce que dañu constaté ni agriculteurs yi ñoom ñëppay bàyyindoo ñoom ñëppay récolté ndoo ñoom ñëppay jaayindoo te loolu dafay indi dysfonctionnement du marché moo tax sax soo demee ay vers les mois de mars avril mai oignon bi day bëri bëri de telle sorte que les dañuy ont mais sax des fois perte parce que si demee ba di mën a ay kilo soble ay 125 150 francs alors que habituellement c'est à 250 300 francs ça pose problème dañ dem ba finalement dañuy am sax euh, euh mes ventes La production de feuilles, doy doy doy ba finalement lépp luñ ko a donc euh, mais, mais, mais année bi oui. Euh, ministère du commerce lu ko waral aussi. un programme boo avec euh, l'ARM donc l'agence de régulation des marchés bi ci ministère le la Banque, bànqaas ci ministère bi am un programme donc de construction de magasins de stockage tout le long de la vallée ak aussi au niveau des Niayes donc ci point de collecte bu nekk dañ fay teg ay magasins yoo xam ay magasins yu mag la yu mucc magasins yooyu ñooy finalement di conserver des fruits, tri di collecter di tri aussi di jaay loolu dina pare dina pare programme ren ren lay pare. Euh, budget bi en tout cas inscrit nañ ko ci te construction yi c' est en cours donc euh, éventuellement euh, gëm naa ni. Mhm. donc avant ñu yegg ci production bi. na ay construction yoo xam ne nañ sorti de. wàllu tëjub marché bi réew exportation yi aussi jamono ji je pense que huit mois ngeen di. waaw ngeen ngeen ngeen ngeen may baykat. waaw xam nga ñu beeg pomme de terre bi. est ce que toll wuñu fu ñuy fu ñuy tëjee douze sur douze wala. waaw non c' est en progression man gëm naa ni sax un ou deux ans On dem ba finalement dootuñu dootuñu importer ci sax. soble wala pomme de terre wala carotte. parce que d'année en année ça progresse et de façon vraiment décisive grandissante donc à telle enseigne que fu mu nekk au début c'était six mois dem sept mois huit mois léegi dañuy dem sax ba pratiquement neuf mois dix euh, mois donc des gel d'importation te loolu amul woon en 2012 je me rappelle c'était presque ay quatre cinq mois mais léegi ont dañuy dem ndax succès bi 9 à 10 mois pourquoi parce que l'État a accompagné accompagner ses propres acteurs. La commercialisation bi surtout ngeen parlé de si aussi au delà que. non pour la conservation Nous ngi encore mieux. nous bëgg sax autour donc de ces productions agricoles nous am aussi ay usines ñii dina mën a defar ay poudre d'oignon di ko euh, exactement donc di ko transformer. te tamit bëgg nañ jàppale yenn commerçants yi appuyer leen donc de façon financière pour que suñu production locale bi aussi ñu koy mën di exporter surtout au niveau de la sous-région. et que Sénégal n'est mhm. nekk euh, en fait les destinataire final. ceeb aussi. waaw bi honnêtement donc mhm. il y a des lenteurs. il y a des lenteurs mais qui sont dues vraiment à des problèmes structurels donc il y a un problème foncier au niveau de la vallée soo les départements yi nga xam ne mooy gën a ñooy gën a bay ceeb dañoo dem ba finalement dañoo saturé mooy le département de Dagana un peu le département de Podor mais soo xoolee dans le Matam donc ça ça ça reste donc il y a aussi un problème d'eau etc. il y a un problème boo xam ni tamit sur le consommé local fu mu nekk c'est vrai que ministère du commerce dafa def benn dispositif bu ñëwee cohabitation c'est-à-dire que nous il faut à l'importateur qui va à l'étranger pour amener du riz un quota ça à dire que une des supposons 10 tonnes de riz localement 3 tonnes de donc de riz local Mais méga a trop euh, une baguette magique tout de suite. donc mais qui a été fixé 2017 2017 yéene la woon. est ce que mën nañoo dem ci ay yéene. di wax lu ñu jàngatu. waaw c'est vrai mais waaw mais c'est vrai mais des fois aussi aduna euh, lay dab corona bi kenn prévoir ko woon. ba tax na état dafa mujj di def sax ay réserve de sécurité maanaam da doon euh, encourager certains importateurs ñuy dem di indi ceeb ñu koy stocké parce que kenn xamul. comme yow ni nga ko waxee nii rek mën na durer 2 3 ans 4 ans et cetera demoon nañ ba finalement ñun dañ doon encourager les les importateurs à importer, à stocker pour que nous am réserves de sécurité pour mener à sécuriser l'alimentation sénégalaise Le cela donc cela est là par exemple le programme d'aide l'État a fait à peu près 64 milliards a ko des jënd diwlin di donc au monde en fait rural aux populations locales. Euh, riposte Covid euh, euh, riposte Covid bi fait déséquilibrer encore donc la balance commerciale concernant le riz donc d'une manière générale soo état mi ngi def lépp lu mu war mais état dafa am ay limites comme ni ko euh, sama naataango commerçant bi wax mënuñu jël euh, mënuñu annuler